الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله نيجي أمات بكتب ريري دي سنت يالله سبحانه وتعالى moom mi def ñu siwaat ci daaru sunna fekkaat fi suñu kilifa suñu baay Cheikh Omar Ndiaye ñu koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla sàmm ko yàlla barkeel li des ci dundam te lim fiy liggéey tamit ak effort yi nga xam ne mi ngi koy def yàlla subhanahu wa taala nangu ko te barkeel ko keroog maa ngi koy wax mbokk yi bi ñu nekkee fii ci jàkka ji mu ñëwoon toog di déglu waxtaan bi ndax léeg bu ñu def waxtaan foofu day ñëw toog di déglu ma doon wax ne effort yi muy def ak sonn bi muy sonn ni mënu na ko ci bañ a fekk ndax bu ko neexoon mu toog këram jàpp njàmburam du fi nekk di deflu ay waxtaan du fi nekk di deflu ay cours du fi nekk di sonn ci lenn waaye yëg-yëg moom moo ko yóbbu ci loolu ak bëgg-bëgg kon du ñu mën lu dul di ko ñaanal yàlla subhanahu wa ta- taala saa bu ñu woowee tamit suñu mënee ñëw wala lu ñu mën a sant ci liggéey bi luñ ci mën a def dafay war ci ñun ñu fekk si ko ci loolu loolu mooy lu lu néew lu ñu gën a li nga xamante ni mooy li gën a néew ci loo xamante ni mën nañ ko dem dox suñu diggante ak moom ndax cër bi ko yàlla jox ci ñun benn leneen la ci des tamit mooy li ñu koy gis mu koy def ci liggéey jaaduwul ci kenn ci ñun muy toog di ko seetaan kon yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala nangu te barkeel ko leneen la ci des mooy waxtaan bi tamit comme ni mu ko waxee ñëkkoon nañ fee ñëw ci tàmbali bi ci commencement bi defoon fi benn waxtaan bu ñu defoon ci jëfee xadis bu wér ak xadis bu wérul wala boog jëfee xadis bu wérul ak nit ki ni muy def pour ràññat la xadis ci wàllu wéram ak ñàkk wéram loolu xawoon na yàgg tuuti ba yàlla def ñu delsi waat comme waxtaan yi dafay nekk luy baamtu euh, ñëw ci beneen thème boo xam ni mi ngi jëm ci yi nga xamante ni moom mooy fomp mooy dindi bàkkaaru nit ki mu nekk fi'lan comme nu mu ko waxee tamit ba léegi thème bu am am solo ndax nit ku nekk soxla na xam loolu ndax yàlla subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama ci matadi matadi googu dafay feeñ ci xelu doomu aadama feeñ ci bëgg-bëggam feeñ ci ay pas-pasam ak coobareem maanaam dogoom ci dara feeñ ci jëmmam jëmmu doomu aadama ak ni ko yàlla bindee lépp ay faiblesse la néew doole googu faiblesse yooyu nekk ci nit yépp ay yoon la yoo xam ne ci la ko bàkkaar yi di jaar ndax dëgër moom mooy waral nit ki mën a am dogu ak résistance ci taxaw ci digganteem ak bàkkaar bu fekkente ni kon dëgër nekkul ci nit néew doole nekk na ci nit loolu kon ay faay la yoo xam ne ci la seytaane di jaar di ñu pousse ci lu bëri ci ay bàkkaar muy lu ñu tuddee ay tentation ndax boo gisee xataa yàlla leçon bi mu ñu jox bi nga xamante ni sàkk na iblis ngir indi ko fii ci kaw suuf bi muy wax malaaka yi def ne inni jaailun fi l ardi xalifa dafa ut xalifa kuy wutu ci kaw suuf mu indi ko fi mooy ki nga xam ne mooy yor nguuru kaw suuf yore ko xilaafatul ard ci loxoom la ko yàlla di teg li ci njëkk mooy yàlla wan malaaka yi secret bu nekk ci aadama ak ni mu ko bindee boo xam ne nekkul ci ñoom ci bi muy wax naan wa allama aadama al asmaa kullaha thumma aradahum ala al malaikati fa qaala anbiuni bi asmaai haula in kuntum saadiqin biñ jógee ci jàngale boobu mu jàngale ci doomu aadama lu yàlla def ci moom ci ay faculté yu ko yàlla may yoo xam nekkul xataa ci malaaka yi ndax malaaka yi dafa am nu leen yàlla bindee noo xam du soppeeku doomu aadama dafa am évolution bu am ci middam ci mën a jóge ci mbonte dem ci baax mën a jóge ci ñàkk xam dem ci xam mooy ci matadi dem ci mat loolu dafa nekk ci doomu aadama leneen li ci des mooy ngir jàngal ko ne am na koo xamante ni boo àndeek moom wàcc fii ci kaw suuf dina la puus dina la yóbbu ci lu bëri ci ay ay ay bàkkaar ak ay ñaawteef muy iblis iblis mi nga xamante ni lànkoon na bañ ne du sujjootal aadama maanaam sujjoot bi li mu doon symboliser li mu doon tekki mooy nangu kilifteefu aadama mooy kilifteef bi ko yàlla jox ci kaw suuf ci yeneen mbindeef yépp nit la yàlla jiital ci ñoom def def ko muy kilifa ci ñoom kilifteef googu nanguloo gu ko yàlla nanguloo yeneen mbindeef yi moo tax mu sujjootloo ñi gën ci ñoom muy malaaka yi ak jinne yi bu malaaka yi ak jinne yi sujjootee nangu kilifteef googu yeneen mbindeef yi ci des yépp waxi noppi loolu mooy tekki nangul gi yeneen mbindeef yi nangul doomu aadama ci doomu aadama nekk bi mu nekk ci kaw suuf nu mu mën a tàggatee ak jëriñoo yeneen mbindeef yi loolu day feeñ ci sujjóot boobu yàlla sujjóotloo woon malaaka yi ak jinne yi ngir ñu sujjóotal ko aadama bi nga xamante ni iblis bañ na te dara te taxu koo bañ lu dul rëy rëylu ak euh, kiñaan gu nekk ci xolam ci ngëneel gi yàlla defal aadama yàlla xam xamoon na ni doomu aadama am na ay faiblesse yu nekk ci moom yoo xam ni iblis xam na ko te bu wàcceek ñoom ci kaw suuf dina leen pousse ci lu bari ci ay ñaawteef yoo xam ne mën na leen yàqal mission bi taxoon yàlla sàkk leen indi leen fii ci kaw suuf mooy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun yàlla bëgg ñu cee jox nja njàng bu tax yàlla jël aadama jaarale ko aljanna dugal ko fa bàyyi ko fa moom ak xawa ak iblis ngir wan ko pexe yi nga xam ne iblis dina ci jaar ba pousse ko ci njuumte ngir mu jàngee ci loolu moom ak ay sëtam ba bu ñëwee ci kaw suuf ñu xam chaque fois fi leen iblis di jaar ndax iblis bi mu ñëwee gis aadama yàlla di ko sàkk mu xool ko gis ne aadama mi dafa am vide ci la xam ne kii xalqun laa yatamaalak maanaam mbindeef la moo xam ne du am maîtrise ci boppam ndax vide bi nekk ci biir chaque fois da koy soxla remplir te loolu benn faiblesse la loolu mooy li yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ci yi nga xamante ni moo ëpp luy dugal doomu aadama safara boo ko seetloo mën nga wax ne biiram la wala gémmiñam ak pëyam yooyu la du génn ci ñett yooyu ci li muy lekk ak li muy wax ak li nga xam ne mi ngi koy jëf ci pëyam bi aadama gisee loolu ci bi iblis gisee loolu ci aadama bi ko yàlla di sàkk mu wër ko di ko xool di xool ni ko yàlla sàkkee bi mu ko xoolee xam na ni kii kuy faible lay doon du am benn kàttan bi ci mën a dékku yenn yi wala ci loolu la ko ci loolu la ko xamee kon ci loolu tamit la ko jaaree ba lekk loo ko garab ga yàlla subhanahu wa taala xamal nañu iblis li mu leen di jaar yépp mooy nax yi mu leen di nax ci li leen foog loo lu bokk la li nga xamante ni moom mooy am ba def loo leen ay njuumte li leen yàlla subhanahu wa taala tere yépp seen njariñ nekku ci moo xam xam ngeen ko wala xamoo leen ko lu leen seen borom sant itam seen njariñ mi ngi ci mu am ay jéego yu bëri yoo xam ne ay kay pexe yu bëri yoo xamante ne ci la iblis di jaar pour di nax doomu aadama yi ci loolu la ko yàlla wàccee ci kaw suuf ngir bëgg xew-xew boobu nekk lu ñu servir de leçon pour ñu ciy jànge waaye ànd ak loolu yépp terewul ne doomu aadama lu mu jàngee jàngee ci xew-xew yooyu ba léegi nekkam ci kaw suuf faw muy wéy di def ay njuumte def ay bàkkaar bàkkaar yooyu li ñu ci nam mooy loo xamante ni sa borom dala koo sant defuloo ko wala defewuloo ko ni la ko sa borom sante ba gàttañ lu am ci loolu bàkkaar lay lay jur wala loo xam ne sa borom dala koo tere bàyyiloo la ko bàyyiwuloo ko wala bàyyiwuloo ko ni nga ko war a bàyyee lu ci nekk ci loolu ay bàkkaar lay jur bàkkaar yi mooy yi nga xam ne day waral merum yàlla ci nit ki mooy li safaanoo ak mbëggeelu yàlla bu ko nit ki defee loolu yàlla subhanahu wa taala daf ko koy jàppal daf koy bindal ndax doomu aadama yàlla da koo sàkk jox ko coobare jox ko iraada muy bëgg-bëgg ci mën a bëgg dara ak bañ ne dinaa def lii du ma def lii yàlla tamit jox ko mën-mën ak kàttan ak sago loolu mooy dàq li nit ñi di ñenn ñi di wax ne yàlla dafa forcer nit lu nit def rek comme yàlla la soob ba mu def ko li muy tekki mooy mënu ko woon bañ a def loolu wérul coobeelu yàlla coobare yàlla dafa jiitu existence su nit mooy xam-xamu yàlla bi jiitu ñun suñu ko am ci kaw suuf loolu mooy coobar ak yàlla leneen li ci des mooy lépp lu am dafay am ci nguuru yàlla lay am kon bu neexul yàlla du am waaye neex bi ñuy wax ne neex na ko yàlla mooy seetaan bu yàlla di seetaan mu am loolu lañ namm ci neex na yàlla waaye tekkiwul na yàlla bëgg na ko yàlla gërëm na ko kon bu boobaa doomu aadama mën na fay nekk di def loo xamante ni yàlla bëgg ko yàlla gërëmu ko loolu di waral muy am merum yàlla bi nekk ci moom loolu nag nit ñi ay catégorie lañ ci ndax ñenn ñi dañoo lànkal yàlla ci tàmbali bi nekkuñ ci li neex seen borom gëmuñu yàlla ñooñu kon si ñi liñ nekk lépp ay bàkkaar lay waral ci ñoom ndax leen ci borom xam dañuy wax ne sa xattaa li ki gëmul yàlla di lekk ci kaw suuf ëllëg yàlla dina ko ko mbugal ndax yàlla subhanahu wa taala bi mu waxee qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadihi wa tayibati min risq daf ne qul hiya lilladina amanu fi lxayaati dunia xaalisatan yowma alqiyama li fi nekk ci ay xéewal yàlla def ko fii yàlla def ne daf koo defal ñi ko gëm ndax moomeelam la alalam la lenn lu fi nekk rek alalu yàlla la te li taxoon yàlla indi ñu fi tàggatal ñu loolu ñu sañ koo jëriñoo mooy ngir ñu taxaw ci jaamu yàlla mooy li ma waxoon sànq ci ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun kon bu nit ñëwee di jëfandikoo njariñ yooyu ci beneen jubluwaay bu bokkuloon ak li tax yàlla teg ko fi mi ngi tooñ yàlla moomu nga xam ne moo fi def xéewal yooyu keneen beneen catégorie bi ci des mooy ki nga xam ne moom gëm na yàlla nangul na yàlla ki gëmul yàlla nangulul yàlla mooy ki nga xam ni dafa lànk ne nangulul yàlla wala ki koy jéem a def ci façon boo xam ne baaxul mooy ñi nga xam ne ñooy dugg ci di diine woo loo xamante ni wérul diine woo loo xamante ni dëppoowul ak xel mu xel mu jub dëppoowul ak ay tegtal yu wér yu wane ne li mooy diine bi yàlla gërëm ñoom ñëpp dañ leen di dugal ci catégorie wu ñi nga xam ni nekkuñ ci ngëm yàlla gu wér nekkuñ ci ngëm yàlla gu wér ñi ci des mooy ñi nekk ci diine nekk ci ngëm yàlla nekk ci diine te diine jooju bi ñu ko waxee mooy ñi nekk ci li ñu tuddee al islam ndax li yàlla waxoon ne wa raditu lakum alislaama diinan wa man yaq wa man wa man yabtaxi gayra alislaami diinan fa lan yuqbala min wa huwa fi l axirati min alxaasirin kon benn diine jooju la yàlla nangu muy lu ñu koy diine woo lu ñu koy jaamoo ñi nekk ci diine jooju ñooy ñi nga xamante ni ñoom la waxtaan bi concerné ndax ñoom ñooy ñiy gëstu yoon yi ñuy jaar ba bu fekkee def nañ njuumte def nañ loo xam ne waral na bàkkaar ñu xool yan yoon la ñuy jaar pour bàkkaar yooyu teggeeku ci ñoom bu boobaa loolu nit ki mënu koo ñàkk xam ndax li ñu waxoon sànq ci néew dooleeg nit ki moo tax yàlla subhanahu wa taala waxoon ne wa xuliqa al insaanu daifan di mu waxee ne yuridu llah an yuxafifa ankum wa xuliqa al insaanu daifan yàlla dafa bëgg a def ci yéen yo yombal daf leen bëgg a defal yombal ci seen mbiru diine ndax yàlla mi sàkk doomu aadama xam nañ da koo sàkk mu nekk ku ku néew doole néew doole googu mooy néew doole gi ñu waxoon ne dafa feeñ ci lu bëri ci doomu aadama boo ko toppee ci kaw ba ci suuf léppam jëmmam léppam ak néew doole da ciy feeñ néew doole googu ci li koy puus ci muy am ay xat-xat ak ay diis diis bokk na ci munta àgg ci benn mat gi doomu aadama kon faw dafay def bàkkaar loolu tamit ba léegi mooy ñëwaat ci xadiisu abi horera radiallahu anhu bi yonente bi alayhi salatu wasalaam waxee ne walladi nafsi bi yadi law lam tudnibu la dahaba allahu bikum wali jaa wala jaa bi qawmin yudnibuuna fa yastaghfiruuna allaha fa yaghfiru lahum muy wax ne maa ngi waat ci yàlla ne bu ngeen dul woon def ay bàkkaar yàlla dina leen fi jële indi ñoo xamante ne dañuy def ay bàkkaar di jéggalu yàlla yàlla di leen jéggal kon doomu aadama yi seenuk matadi coobare yàlla la seenuk ñàkk mat coobare yàlla la yàlla moom la soob mu sàkk malaaka yi laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun du ñu moy yàlla nekk ci mat yàlla jox leen ay cër jox leen ay mission yoo xam ne moom la ñuy taxawee li mu waxoon ne jaailil malaikati rusulan yàlla daf leen def yabal leen ci ay mbir yoo xam ni moom ñoo koy taxawee yàlla sàkk doomu aadama yi ci anam bi mu leen sàkkee ci matadi sàkku ci ñoom nag ñu jéem a góorgóorlu fexe ba mat moo tax yenn ci borom xam di wax ne doomu aadama li daje ci moom ñaari mbir la mooy côté malaaka bi ak côté animal bi nga xamante ni mooy bëgg-bëgg yi bànneex yi ak fomeek yu mel noonu côté bële mooy côté bi nga xam ne côté xel mi la xel mi moo ko ci xëcc ak ruux bi pour mu set pour mu mat bu doomu aadama wuyoo côté boobu tàggat bakkanam ci jaamu yàlla ci topp yàlla ci bëgg yàlla ak fóot bakkanam ci ay bàkkaar ak ay taq-taq ak bànneexi bakkan bi doomu aadama boobu dafay dem ba gën malaaka yi ndax malaaka yi noonu ñu mel yàlla moom moo leen ko melal ci mbind yow nag boo demee ba àgg ci niveau boobu te fekk ne yàlla bind na la ak ak matadi nga góorgóorlu ba matadi googu deñ sa bakkan set ci ay bàkkaar bu boobaa yow yaay ëpp mérite ki nga xamante ni moom dañ koo sàkkaale ak loolu loolu ñenn wax nañ ko ci werante bi dox ci diggante borom xam-xam yi ci malaaka ak doomu aadama ku gën kon bu fekkee doomu aadama ak matadi googu mi ngi ci moom ñu xam ne coobare yàlla la subhanahu wa taala nit nekk ku matadi doyadi googu nekk ci moom ba yonente bi alayhi salatu wasallam di wax ne bu ngeen dul woon bàkkaar yàlla dina leen fi jële indi ñoo xam ne ñoom dañuy def ay bàkkaar di jéggalu yàlla yàlla di leen jéggal xadis mi ngi ci saxiixu muslim loolu kon day wane loolu coobare yàlla la beneen mbir bi ci des mooy iblis ñëw bi mu ñëw ànd ak ñun lan moo tax yàlla téyewu ko mu soriñu ne ah kii du ma ko bàyyi muy dem di ànd ak sama jaam ñi ndax bu àndeek ñoom daf leen di sonal lan moo tax mu bàyyi ko ibn abil aziz da ciy wax wax yu am solo dafa wax ne iblis nekkam fii baax na ndax li tax mu baax mooy boo xoolee naam dafay yàq lu bari ci nekkinu nit ñi waaye lay la lay la ci doomu aadama mooy ngànt la ci doomu aadama ndax bu fi iblis nekkul woon loo def rek yow yaay sa responsable ci li nga def mais comme iblis mi ngi fi lay la ci ne seytaane la rek da ngay dégg léeg-léeg sax nit def dara ñu ne ah seytaane la rek maanaam seytaane la rek boobu mel na ni ñu ngi lay utal excuse alors que bu fi iblis nekkul woon yow rek yaa fi nekk yaa ak sa bopp comme iblis mi ngi fi léegi lu bari ci suñuy njuumte ak suñuy rëcc-rëcc dañ naan iblis moo ñu ci puus waaw li ñu naan dàq ginaar waxaale sa soxla léegi lu amate rek da nga naan iblis moo la ci puus bu ko defee nga jéggalu yàlla ci loolu kon loolu coobare yàlla la beneen bi ci nekkaat tamit mooy nattu la iblis nattu la ci ñun épreuve la ci ñun ci nekk bi mu fi nekk dañu puus ci lu bon ñuy jéem a xeex ak su moom di xeex ak suñu bakkan di bëreek di bëreek moom loolu yëpp day dugg ci nattu bi yàlla subhanahu wa taala nattu ñu bi mu waxee ne alladi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum li yabluwakum boobu mu waxoon ayyukum ahsanu amalan ibtilaa dafay feeñ foofu muy nattu bi bu ñu dee waxtaan nag ci yi nga xamante ni mooy far bàkkaar fomp bàkkaar mën nañ koo xaaj ci ay xaaj benn bi mooy loo xam nit ki moom moo koy def maa nit ki moo koy fàggu def ko mu faral ko ay bàkkaaram beneen bi ci des nit ki du ko def ci tàmbali bi mais am na lu mu ci am na taxawaay bu mu ciy am loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala leneen li ñu war a tamit bàyyiwaat xel mooy équilibre bu war a am ci nit ki ci bu ñu dee wax ci buntu yaakaar ak buntu am rafet njottu ci yàlla jullit munta am ñàkk am yaakaar ci yàlla munta ñàkk am rafet njottu ci yàlla ndax loolu la yàlla waxoon ne ana inda vanni abdi bii man ni ma sama sama jàmm yaakaaree rek noonu la may fekkee lu sama jaam yaakaar ci man rek loolu lay fekk ci man kon nit kuy yaakaar na nga yaakaar ci yàlla lu baax na ngay séntu ci yàlla lu baax na ngay am rafet njortu ci yàlla na ngay am rafet njortu ci yàlla tey bañ a am ñaaw njortu ci yàlla waaye ñaaw njortu ci rafet njortu ci yàlla tekkiwul tamit naagu naagu mooy bàyyandiku li nga war a def defuloo ko defuloo lenn lu war a tax nga yaakaar fay ba noppi di séntu fay loolu naagu lañ koy tuddee loolu ay naxu seytaane la li yàlla li yonentu yàlla subhanahu wa taala waxoon ne wa ma yaiduhu wa ma yaiduhum sheytaanu illa gururan yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum sheytaanu illa gururan ay umniya la mooy loo xam ne dala koy foogloo ci tegu lu teguwul ci benn base bu fekkee nit ki bëgg na yàlla yaakaar yàlla dafay góorgóorlu ci def lu tax mu am fayu yàlla subhanahu wa taala inna alladina amanu walladina haajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmat allah ñi yàlla subhanahu wa taala wax ne ñoom ñoo yaakaar fayam ak yërmandeem bu ëllëgee daf ne mooy ñi gëm di daw di rëccal seen diine ak di góorgóorlu ci yoonu yàlla ibn al qayim nee na ñooñu def liggéey bu toll noonu ba noppi yàlla ne ñooñu nag ñooñu yaakaar yërmande yàlla nekkul ñu toog rek croiser les bras naan yaakaar nañ yërmande yàlla loolu moo tax kon jullit bi pour diineem équilibré foog ñetti mbir mu sàmm ko bu baax a baax ci xolam bàyyi ci xel ni ko ibnul qayim di di di di di misaale sax mooy dafay wax ne ki nga xam ne dafa yor benn bàyyi ma yor benn fas nekk ak moom ci kaw yoon di ko dàq pour mu dem yóbbu ko ci benn dëkk nee na foog mu yor benn yar boo xam ne moom lay xuppee fas bi moo xam dóor na ko wala dóoru ko waaye fas bi daal xam na ni am na yar bu ko tiim boo xam ne bu dawul ni ko boroom boroomam bëggee dina ko ko dóor kon loolu benn tiit la gu mu tiit beneen bi ci des am loo xamante ni bi moo koy téye ci yoon wi ba du def ay dérapage jàdd gauche droite ndax bu ko defee day téggee ko ci yoon bi du àgg fa mu jëm beneen bi ci des mooy am lu koy motiver pour muy gën a góorgóorlu ci di dem pour àgg fa mu jëm ndax yaakaar na ni fa mu jëm bu fa àggee dina noppalu dinañ ko jox mu lekk dinañ ko jox mu naan loolu sa warloo ko mu ne ki tegu ci siraatul mustaqim tamit mbir yooyu moom moo daje ci moom muy xawf ak raja ak mahabba muy ragal bi nit ki di ragal yàlla subhanahu wa taala ragal mbugalu yàlla loolu tax nga moytandiku lépp loo xam ne mooy tere yàlla bi ci njëkk mooy moytandikoo wàcc siraatal mustaqim tegu ci siraatal mustaqim ba pare góorgóorlu ci loolu beneen bi ci des mooy li nga xam ne mooy arraja mooy yaakaar gi ngay yaakaar yàlla yaakaar fayu yàlla subhanahu wa taala loolu téye la ci yoon wi ba tax doo jàdd gauche wala droite ci li mu doon wax naan wala tattabicu xutuwaati shaytaan ak wa anna hada siraati mustaqiman fattabicuhu wala tattabicu subula fatafaraqa bikum an sabili beneen bi ci des mooy almahaba muy bëgg gi nga bëgg yàlla bëgg la nekk fa yàlla mu gënal la lu mu mën a doon loolu tax ngay góorgóorlu ci dem ngir daje ji ëllëg ak sa borom daje ji ëllëg ak sa fayu borom. kon ñett yooyu bu ci nit ki équilibré wu lu mu koy jural mooy déséquilibre boo xam day am ci diineem yàqal ko diineem bu ëppalee côté ragal bi ak côté tiit bi loolu da koy yaakaar da koy xaddiloo ci yërmande yàlla. mu xaddi ci yërmande yàlla te ku xaddi ci yërmande yàlla da ngay sànku da ngay alko wala nga xaddiloo nit ñi ci yërmande yàlla beneen bi ci des mooy nga naagu am yaakaar bu ëpp boo xamante ni teguwul ci di góorgóorlu ak jéem a mérité li nga xam ne moom ngay yaakaar ñaar yooyu ci benn rek la lay yóbbu moo tax jéem a bàyyi xel yooyu dafa am solo lool mooy li yàlla waxoon ne ulaika alladina yaduuna yabtaguuna ila rabbihim alwasilata ayuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yaxaafuuna adaaba yàlla dafa wax ne ñi nga xamante ni bi ñoom la gaa yooyu doon jaamu ndax ibnu masud dafa wax ne dafa am ci jamonoy ceddo ñoo xam dañ daan jaamu ay jinne jinne yi dem ba gëm yàlla nekk ay jullit te ñi leen daan jaamu xamuñu ko yàlla ne ñooñu nag nga xam ne moom ñoom lañ doon jaamu ñoom jinne yooyu ñoom ña ngay góorgóorlu di xool yoon bu leen yóbbu ci yàlla waaw ña ngay góorgóorlu yabtaxuuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab maanaam al qurb kon lañ bëgg wasila foofu liñ ci nam mooy jaamu yàlla yi ngay def jëf yu baax ngay def pour mu jegale la sa borom mu ne wa yarjuuna rahmatahu wa yaxaafuuna adaaba ànd ak li ñuy góorgóorlu def effort pour jege seen borom ña ngay am yaakaar ci yërmande yàlla ak di ragal mbugalam di ragal mbugalam mu waxaatoon tamit ci yonent yi ne innahum kaanu yaduunana ragaban wa rahaban innahum kaanu yusaaricuuna fi lxayraat wa yaduunana ragaban wa rahaban wa kaanu lana xaashiin bu muy wax ci yonent yi tamit ci njeexital ba dafa wax ne dañ daan jaamu yàlla subhanahu wa taala di njëkkalante ci yiw ba pare di ñaan yàlla ak di ko jaamu ci kaw ragal ko ak ci kaw yaakaar ko ndax ar raxba wa raxba ar raxba mooy xemmeem bi ngay xemmeem la nekk ci yàlla ci ay yërmande ak xéewal ar raxba mooy ragal gi ngay ragal la nekk fa yàlla ci daan ak ci mbugal kon yonent yi ñoo ñu gën a mat ci doomu aadama yi bu yàlla melalee seen jaamu yàlla ba pare wax ne ci diggante ñaar yooyu la tegu woon kon kenn mënta ñàkk yooyu kenn mënu ko ñàkk ñi daan dem ba àgg ci jaamu yàlla fu ñuy demee ba naagu ba yaakaar ne soxlaatuñu di am xemmem ak ragal ci seen jaamu yàlla ndax ñoom mbir mi seen digganteeg yàlla la dañoo juum daan nañ ko nettali di wax ne ñenn ñi dañ daan wax ne maa abadtu rabbi laa tamaan fi jannatihi wala xawfan min adabihi innama abuduhu li annahu yastaxiqu l ibada mooy ñu daan wax naan dañuy jaamu yàlla parce que yàlla dafa dafa yelloo ñu jaamu ko waaye jaamuwuma ko ngir ne dama xemmem aljanna wala ma ragal safara loolu njuumte bu rëy la kon am digg doomu bi baax na ci digg doomu bi nag li koy jur bokk na ci bañ a juum ci ni ngay interpréter texte yi ñu waaj a jàng texte yi ñu waaj a jàng mooy texte yoo xam dañ naan la ku def nangam dugg aljanna yonente bi alayhi salaam ne man maata wa huwa yaalamu annahu laa ilaha illa allah daxal aljanna ku faatu fekk ne yaa ngi xam ne amul lenn lu ñu jaamu ci dëgg lu dul yàlla da ngay dugg aljanna nga ne kon xam-xam boobu doy na pour nit dugg aljanna même bu jëfulee comme ni ko aljahmiya daan waxee ne ngëm yàlla mooy nga xam ku xam rek gëm nga yàlla ba yenn borom xam wax leen ne bu dee loolu de ni ngeen ko waxee am na kon iblis gëm na yàlla ndax iblis xam na waaye taxu ko nekk ku gëm yàlla dégg nga yooyu njumte la ci interprétation bu baaxul ci ni ñuy tekkee texte yi nga xam ni mooy wane yërmande yàlla wane njéggalu yàlla nu mu yaatoo yooyu boo ci soree trop ci am ci déggin boo xamante ni bu bu- bu yaatu la te bàyyiwuloo xel yeneen texte yi ca des da ngay juum moo tax yàlla subhanahu wa taala day wax ne nabbi ibaadi anni ana alghafuru rahim wa an adabi huwa huwa al adabu al alim na nga xamal sama jaam ñi ne man day kuy jéggale la kuy yërëmaate la waaye sama mbugal tamit mbugal mu mbugal mu tar la lan moo tax mu lëkkale ñaar yooyu pour nit ki nekk ci diggante bi di yaakaar ak di ragal fu mu toll loolu moom mooy téye nit ki ci yoon wi di yaakaar ak di ragal ndax yaakaar bi mooy tax ngay góorgóorlu ci di def li ñu lay sant tere bi mooy tax ngay moytundiku li ñu lay tere waaleykum salaam wa rahmatullah moo tax cheikh lislaam doon wax naan inna alfaqiha kulla alfaqih alladi laa yuayisu nnaasa min rahmatillah wala yujarriuhum ala mas- maasillah doon na wax ne yenn borom xam ne dañ daan wax bu njëkkoon ne ki am xam-xam dëgg am fiq dëgg mooy koo xamante ni bi doo xaddiloo nit ñi doo génneloo nit ñi seen xel ci yërmande yàlla ak lu bàkkaaru nit ki sori sori sori ci moom doo ko mës a xaddiloo ci yërmande yàlla ndax xaddiloo nit ñi ci yërmande yàlla dem ba ne nit ki moom yàlla du ko jéggal yàlla nangam loolu kenn du ko def moo tax ci xadis yonente bi alayhi salatu wasalaam ne bis bu nit demee ba ni diw de yàlla du ko jéggal laa yaxfirullahu li fulaan diw de yàlla du ko jéggal yàlla subhanahu wa taala ne man alladi man da alladi yataalla alayya anni la la axfiru li fulaan faqad gafartu lahu wa axbatu amalak kan mooy waat ak a dogu ci yàlla ne du mu du jéggal diw xamal ne jéggal naa diw te yow mi wax loolu neenal naa say jëf waaleykum salaam wa rahmatullah kon kenn du kenn du dogu ci nit ne kii def na lu tax yàlla du ko jéggal yonente bi alayhi salatu wasalaam am na benn waay bu daan ñëw ci moom di waxtaan ak moom di ko reetaanloo dafa safoon xorom daan faral di ñëw léeg-léeg da ngay gis kilifa goo xam ni nit da koy fréquenté goo xam ni sax xëy na taxu koo demee noonu ci wàllu xelam wala yu mel noonu waaye muy toog ak moom di waxtaan ak moom ndax oyofam waa ji da daan naan saa bu ñu ko dóoree mu dem naanaat ñu indiwaat ko bi ñu ko indee dóoraat ko ndax dóor yi pour yar la rek. ba nit ñi bañ a am dëgër fit ci di def li nga xamante ni mooy mooy yàlla gu mel ne naan sàngara ndax naan sàngara lu bari lay yàq ci société bi saa bu ñu ko dóoree mu dem ñëw naanaat benn bis ñu dóor ko ci ñeenteelu yoon bi yenn borom yi xam-xam sax wax nañ ne loolu problème la xadis boobu ndax li tax mu nekk problème ku mel ne yaakaar na imaam Tirmidi la wala Abu Daawud dama xamatul kan la mi ngi wax naan téeréem bi mu bind di as sunan xadis yi si nekk yépp yu ñu mën a jëfee la ba mu des ñaari xadis yoo xam dafa causé problème benn bi mooy xadisu Abdullah ibn Abbas bi yonent bi alayhi salatu wasalaam jullee timis ak gée ci madina te nekkul woon ci tukki te tawul woon mu ne boobu problème la mais problème la donte am na explication ju ko yenn borom xam jox comme explication beneen bi ci des mooy waajooj ñu indiwoon quatrième fois ñu dóor ko te yonente bi alayhi salatu wasallam dafa waxoon ne bu naanee ñeenteelu yoon nañ ko rey loolu la waxoon ci yeneen xadis mais yenn ci borom xam ne explication bi ñu ci joxe mooy ñeenteelu yoon bi ñu ko dóor loolu dafa teggi kon atte bu njëkk bi nga xam ne moo waxoon ne nañ ko rey bu ko defee kon décision foofu kan moo ci ci moom la décision bi di dellu mi ngi dellu ci imam bi ki jiite jullit ñi ki jiite jullit ñi yu mel noonu foog jullit ñi am état am nguur am autorité nekkul lu ay nit di def nii rek moom mooy xool ci loolu ijtihaad ci xool ñeenteel yoon bi bu ñëwee lan la ci jël comme comme sanction waaye daal bi ñëwee bi ñu ko dóoree benn waaye daf ne laanahu llah ma akthara ma yu'ta bihi benn waaye dafa toogoon ci état bi ne yàlla na ko yàlla rëbb ki daal yàlla na ko yàlla rëbb ak a bëri lu ñu koy indi yonente bi alayhi salaam ne ko laa talaanhu yonente bi alayhi salaam ne ko bul ko rëbb ama inni la aalamu illa annahu yuhibu allaha wa rasulahu xawma ci moom waa ji ak li muy kàccoor kàccoor yépp leneen lu dul ne bëgg na yàlla akub yonentam xoolal tazkiya bu rëy bu yonent bi alayhi salaam defal koo xam ne doon naan sàngara loolu kon mooy ki xam am xam-xam dëgg du xaddiloo nit ñi ci yërmande yàlla subhaanahu wa taala xaddiloo nit ñi ci yërmande yàlla ba ci sax xeeb nit ndax ma ngay def bàkkaar nga xeeb ko da nga da nga ciy tiite da nga ciy jàngee da nga ciy sante yàlla mais bul ko xeeb beneen bi ci des mooy wala yu jarriuhum ala maasillah mu ne ki ki xam dëgg ti mooy ki nga xam ni du dëgërloo nit ñi fit ci yi nga xam ne ay bàkkaar la ak mooy yàlla la dëgërloo ci nit ñi fit boo ku wax rek nga ne ko dina yomb na yërmande yàlla yaatu na amul problème te liñ lay laaj wala la ñuy def ay bàkkaar la yoo xam ni waroon nga leen xamal ne dañ ko war a moytu gënul nangam sàngam wax ak ñoom ci ne bu ñu tuubee dellu ginnaaw yàlla yërëm leen ak yooyu waaye pas may leen fit ci loo xamante ne ay bàkkaar la kon am am am digg doomu ci yooyu lu ama am solo la lenn la ci des mooy bu fekkee dañuy wax ci tamit bàkkaar yi ne lu koy far mooy fokk ñu def différence entre type de bàkkaar yi ndax bàkkaar dafa am saxaayir am kabaayir ci li gën a siiw ci waxu borom xam ibnul qayim def ne sax loolu moom la alxuraan tegtale sunna tegtale ko saxaaba yi ci loolu lañ dëppoo ñoo taabiuna yi mu ne bàkkaar ñaari xaaj la ndax yàlla daf ne in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudxilkum mudxalan karima mu waxoon tamit alladina yajtanibuna kabaira al ismi wal fawaxisha illa lamam illa lamam ma mu wax ne kon yàlla nee na bu ngeen moytandikoo yu mag yi nga xam ne moom laa leen tere dinaa far dinaa leen jéggal yi nga xamante ne bi moom mooy seen yeneen rëcc-rëcc yi mu waxoon tamit ne ñi nga xam ne ñoom la gërëm ñi gëm yàlla mooy ñi nga xam ne dañuy moytandiku bàkkaar yu màgg yi yu ndaw ndawaan yi nga xam ne ay rëcc-rëcc la yooyu mënut a ñàkk mënuñ cee mucc mu ne yooyu moom mooy yi ñuy def kon loolu li muy tekki mu am na ci bàkkaar yi bàkkaar yoo xam ne yu màgg la yu mag la yonente bi alayhi salaam waxoon na ci xadis ne ijtanibu sab'a al mubiqaat na nga moytu juróom-ñaari bàkkaar yi nga xamante ne bi dafay dafay alakaate dafay alagaate mu ndax ay bàkkaar yu màgg la bàkkaar yu rëy la yooyu mu tuddoon ci alishraaku billah muy bokkaale ak yàlla assixr muy njabar wa qatlu nafsi allati xarama allahu illa bilxaq wala ba qatlu nafsi allati xarama allahu bi gayri xaq muy rey baat bakkan boo xam ne yàlla ko araamal te teguwul ci dëgg wa aklu maalul yatim ak lekk alalu jirim mooy orphelin boo xam ne dafa bàyyam dafa faatu fekk mu nekk xale nit lekk alalam ci loo xam ne teguwul ci dëgg wa aklu riba ak lekk riba wa tawalli yowma zaxf ak daw bis boo xam ne jullit ñi dañ dem ba jàkkaarloog seen i noonu seen i ennemi nit ki dem ba ci front bi jóge fa daw ci loo xam du repli tactique wala loo xam nañ ko ci jox ndigal mu daw wa qadful muhsanaat al ghafilat al mu'minaat ak jullit boo xam ne jullit bu jigéen la bu jàpp boppam te njàmburam nit ki accusé ko tuumaal ko ci loo xam ne teguwul ci dëgg njaaloo yooyu yonente bi alayhi salaam lim nekkul loo xam ne dafa ëmb yépp bàkkaar yoo xam ne ay bàkkaar yu mag la waaye lenn ci borom xam ne dañ ko tënk ku mel ne abu talib al makki moom daf koo tënk ci cër yi nga xamante ne bi ñoom ñoo koy def mu ne bi mu xoolee borom xam-xam yi li ñu cité ci yi nga xam ne ñooy bàkkaar yu mag yi moom daf ci xool ne am na ci ñent yoo xamante ne bi xolu doomu aadama moom moo koy def mu ne ñenti bàkkaar yu mag yi nga xam ne xolu doomu aadama moo koy def bokkaale la ak nuur ci bàkkaar bañ koo bàyyi loolu ci xol bi lay jóge ndax xol mooy réccu bàkkaar bu nit tuubee bu fekkee nag loolu amul mooy nuur ci bàkkaar moo tax ñeneen di wax ne nit day nuur ci bàkkaar sax fekk cër yi defu ko ndax nuur bi mooy ci xol bi xëy na da koo mënatul wala dafa jàppandeetul mais tuub dëgg-dëgg ci xol bi lay jóge mu ne kon bokkaale ak nuur ci bàkkaar ak xaddi ci yërmande yàlla mooy alqanuut min rahmatillah wa amnu makrillah ak dem ba naagu ci ne yow moom mucc nga waaw dara dootu la dal yàlla du la mbugal dootoo réer dootoo nangam dem ba daal dal sax dalal sa xel ci mbiru yàlla mu ne ñeent yooyu noonu saa bu ko nit ki defee ci xolam def na ay bàkkaar yoo xamante ne ay bàkkaar yu màgg la mu ne ak yeneen ñeent yoo xamante ne ci làmmiñam la ko nit ki di defee benn bi mooy di seede seede yoo xam ne du dëgg seede yi dëgg maanaam seede ci lu dul dëgg beneen bi ci des ñaareel bi mooy di ŋàññi ak di tuumaal jigéenu jullit bu jigéen bu jàpp njàmburam beneen bi ci des mooy di jaay di wat ci njaay mi loo xam ne xam nga ni du dëgg nga ciy wat ngir lekk xaalisu nit beneen bi ci des mooy def njabar jëfandikoo njabar ci làmmiñ lay jóge ci ci cosaan li ci ëpp ci làmmiñ la doonte nit ki dina ko def ak i cëram mu ne ñett yoo xam ne ci biiru nit la jëm ci bàkkaar yu màgg yooyu benn bi mooy naan sàngara bi ci des mooy lekk alali jërim beneen bi mooy lekk riba mu ne ñaar ci pëy la ko nit di defee mooy njaaloo ak ngóor jigéen yeneen ñaar yi ci des mooy nit ki di def ci loxoom mooy rey nit ci lu tegul dëgg ci dëgg ak jël alalu jàmbur ci xeetu façon jël alalu jàmbur yépp benn moom la nit ki di def ci ay tànkam mu ne mooy daw ci jullit ñi bu fekkee dañoo jaamaarloog seen noonu ba nekk ci front bi nit ki daal di daw ci loo xam ne teguwul ci benn euh, ci teguwul ci dëgg teguwul ci loo xamante ni lu ko waral la ak benn boo xamante ni waaleykum salaam wa rahmatullah ak benn boo xamante ni bi ci ja- ci yaram bi yépp lay jóge mooy dënga say ñaari waajur mooy ñàkk a rafetal sa diggante ak say ñaari waajur ñi ñi nga xamante ni bi ñoom limuñu ko tënkuñu ko comme Abu Talib al makki ni mu ko defee ci bàkkaar yu mag yi dañ ne bàkkaar yu mag yi bu ñu dee wax bàkkaar bu mag mooy bépp bàkkaar boo xam ni dañ koo tere tere boo xam ni dañ ne la boo ko defee ay duma mbugal da ciy topp wala dañ la ciy teg sanction daan fii ci àdduna wala dafay waral meru yàlla wala dafay waral rëbbu yàlla bu fekkee benn ci yu mel noonu am na ci ñoom dañ ne bàkkaar bu màgg la bàkkaar boo xam ni dañ ciy xupp nit ki ci mbugalu yàlla yowmal qiyaama wala rëbb yàlla rëbb ku ko def wala ñu ne merum yàlla mi nit mi ngi ci ku ko def wala ñu ne ku ko def nañ ko sanctionné fii ci àdduna yooyu bu ci nekkee rek bàkkaar boobu bàkkaar bu màgg la am ñeneen ñu wax ne bàkkaar bu mag ak bu ndaw amul ndax bàkkaar yépp yu mag la lépp lu nit def ci mooy yàlla rek lu mag la loolu am na ci benn sens lu wér la mais boo xoolee tamit comparé nga diggante lu mel na nga ne alxuraan lépp waxu yàlla la dara néewu ci dara ñàkku ci solo mais alxuraan dañoo gënante ndax aaya bi gën ci aaya alxuraan yi mooy ayatul kursi mais nga ne ayatul kursi moo gën yeneen aaya yi tekkul ne nga ne yeneen aaya dañoo ñàkk solo wala dañoo néew solo nga ne fatiha moo gën ci saar yi comme na ko yonent bi alayhi salaam waxee tekkiwul nga ne yeneen saar yi ci des dañoo ñàkk solo mais boo leen comparé seen diggante bii moo gën a màgg que bii loolu rek lañ ci namm buñ dee wax tamit ci jéggal gu yàlla di jéggalee bàkkaar yi baax nañu xam lan lañ ci namm liñ ci nam mooy fii ci àdduna bépp bàkkaar bu nit def bu ko tuubee yàlla jéggal ko ko bépp bàkkaar bu nit def yàlla dina ko jéggale bàkkaar yi am na ci loo xam diggante nit ki ak yàlla la am na ci loo xam diggante nit ki ak ay moroomi nitam lañ loolu dinañ ci wax suñu àggee ci wàllu tuub li yàlla di dul jéggale mi ngi ko dul jéggale bu ko nit ki faatuwaale bu ko nit ki deewaale ci bàkkaar li ci yàlla dul jéggale mooy lu mel ne shirk muy loo xam ne ci àqu yàlla la jëm ci jëmmu yàlla la jëm ci sañ-sañu yàlla la jëm nit ki jël ko jëmale ko ci be- keneen ci mbindeef yi bàkkaar boobu rëy na rëyaay boo xamante ni bu ko nit ki faatuwaale yàlla du ko ko jéggal ak leneen li ci aju lépp ci bokkaale ak weddi yàlla innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu nnar wa ma lilzalimina min ansar inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'idan ginnaaw bàkkaaru bokkaale boobu beneen bàkkaar bu mu mën a doon bu ko nit ki faatuwaalee te mi ngi ko mi ngi faatu ci ci wéetal yàlla yàlla dina ko jéggal yàlla mën na ko jéggal loolu mooy li yonent bi alayhi salatu wasalam waxoon ci ku faatu ci laa ilaha illallah da ngay dugal aljanna li muy tekki mooy képp ku faatu ci tawxid ak lu say bàkkaar rëy rëy rëy rëy aljanna nga jëm moo xam ci saasi wala ginnaaw ab diir xadis yooyu noonu lañ koy déggee mooy ne ku faatu ci laa ilaha illallah faatu ci tawxid ala kulli xaal destination finalam aljanna la léegi nag daxalal janna tekkiwul ne duxul bi fawran lay doon mooy bu ñu demee rek da ngay jàpp sa loxo ne da ngay dugg ndax léeg-léeg nit mën na am ay bàkkaar yu tax ñu mbugal ko ndax wér na ni nit ay nit nañ faatu ak bokkaar ak ngëm yàlla faatu ak wéetal yàlla am ay jafe-jafe ci taxawaayu yowmal qiyam wala am jafe-jafe yu tax ñu jaar safara loolu mooy ñiy génnee safara mathal ñiy tuddee aljahannami yuun yi nga xam ne ñooy génnee aljanna safara jahannama dugg aljanna ñu leen di tuddee aljahannami yuun borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax qul ya ibadiy alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia yàlla dafay jéggale bàkkaar yépp kon yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ba noppi def ay mbir yoo xam ne da ngeen caa tooñ seen bopp da ngeen caa tooñ seen bopp ndax nit bu defee bàkkaar tooñul yàlla boppam la tooñ bu leen xàddi ci yërmande yàlla ndax yàlla dafay jéggale bàkkaar yépp loolu fii ci àdduna nit ku ko dégg war nga xam ne kon yàlla day jéggale bàkkaar yépp yonente bi alayhi salatu wasallam di wax ne moom yàlla mi ngi wax ci xadithul qudsi ne yow doomu aadama li feeg yaa ngi may ñaan di ma yaakaar dinaa la jéggal ak loo mën a def te duma ci xool lenn yow doomu aadama bu fekkonte ni say bàkkaar dafa dem ba àgg sa asamaan dafa dem ba àgg ci asamaan li ñu ci namm nekkul asamaan ciel bi ci boppam mais li ñu ci namm mooy nuage yi ñenn ñi ne mooy li ngay gis ci asamaan ndax law anna law balagat dunubuka anaana sama anaana sama al anaan nee nañ mooy maa zahar mooy ma an ida anna laka shay mooy ma ida zahara laka shay mooy li feeñ ci asamaan bu nit defoon bàkkaar yu dem ba àgg foofu bu ñëwee dikkal yàlla subhanahu wa taala jéggalu ko yàlla nee na boo ma jéggaloo ma jéggal la kon mbir mi du rëyaayu du rëyaayu bàkkaar yi ak bëriwaay bi moo yitteel yàlla yàlla yërmandeem weesu na loolu yërmandeem weesu na nit def bàkkaar yu bëri mu jéggal ko nit def na ay bàkkaar yu jéggi dayoo yàlla jéggal ko nit faatu na sax ci bàkkaar yoo xam ni boo xoolee xadiisu al al muusi yonent bi alayhi salaam nee na benn waaye dafa def ay bàkkaar ba bi muy faatu xalaatu lenn lu baax lu mu mës a def ci dundam mu dajale fameem ne leen baaxoon naa sama digganteeg yéen waaye ku ku bonoon la digganteem ak boroomam léegi bu faatoo nañ ko lakk ba mu nekk dóom ñu jël doomu taal bi lenn li ñu sànni ko ci géej gi lenn li ñu sànni ko ci ngelaw li ndax jàpp na ni bu yàlla amee ci moom kàttan ci dekkalaat ko dina ko mbugal loolu rek dèjà loolu mu wax noonu rek kéeféer la waaye njuumte moo ko ci yóbbu ragal gu mu ragal dajeeg yàlla ak ñàkk a xam moo ko ci yóbbu mu juumaat sax ci njuumte loo xam ci pas-pas la jëm biñ ko defee noonu yàlla daf ne doomu taal bi nekkaatal diw mu nekkaat diw innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun mu nekkaat diw nekk jëmm ju taxaw ci kanamu boromam yàlla ne ko ay abdi maa xamalaka ala ma faalt yow sama jaam bi lan moo la yóbbu ci lii nga def mu ne rabbi xashatuk qaala idhab fa inni qad gafartu lak mu ne yow sama borom ragal la de ba bëgg a rëcc ak mucc ci yow moo tax ma digle lii ma def mu ne ko demal jéggal naa la xoolal një njëggal njëggal lu tey lu rëy lu toll noonu kon li muy tekki mooy njëggalul yàlla foo ko takk weesu na ko xadis qudsi ba léegi di wax ne yow doomu aadama bu fekkonte ni da ngaa ñëw indi bàkkaar yoo xam ne fees na kaw suuf wala ma ngay bëgg a fees suuf suuf yépp ni mu toll nit def bàkkaar yoo xam ne bu doon jëmm la bu doon jëmm la ju ñuy teg boo ko tegee dajale ko day fees kaw suuf mu ne nga dikkal ma fekk nekkoo di ma bokkaale loolu mooy charte bi te ñu bëri duñ ci bàyyi xel mooy faatu fekk mucc nga ci bokkaale bokkaale mooy problème bi na pas-pas bi set na nit ki mucc ci bokkaale boo ma dikkalee ma jéggal la te du ma ci xool lenn yàlla subhanahu wa ta'ala boo ñëwee indiwuloo bokkaale indi lu toll noonu ci ay bàkkaar dajeek man fekk ne dinaa la ko jéggal loolu yépp yi nga xamante ni moom la ñuy wax ci yi yi yi yàlla di jéggale nit ki ay bàkkaaram yu bari la waxoon nañ ne am na ci loo xam ne nit ki moo koy def mooy sabablu def ko yàlla jéggal ko ci ay bàkkaaram am na ci loo xam ne sax doo ko du yow yaay sabablu directement def ko yàlla te yàlla dala ci jéggal say bàkkaar léeg-léeg nit dañ koy jéggal ay bàkkaaram fekk xamu ko sax xamul ne sax ay bàkkaaram yàlla mi ngi ko ci jéggal loolu yonente bi alayhi salaam wax na ci ci xadis yi ñëw ci kanam ci léeg-léeg nattu yi dal nit ki ak jafe-jafe yu koy dal yàlla di ko ciy jéggal ay bàkkaaram mu dem ba bàkkaar yi set wicc ci moom te xamu ko yooyu ay sabab yu bëri la yu ñu ciy tudd yoo xam ne cheikhul islam rahimahullah tudd na ko ci lenn ci ay téeréem sabab yi nga xam ne moom lay yàlla di jéggalee bàkkaar yi nga xam ne moo dëgg-dëgg mooy sujet bi li ñu tuddee mu kaffiraatu zunub mooy yi nga xam ne mooy fomp bàkkaaru nit ki biñ ciy njëkk a tudd mooy at tawba at tawba at tawbatu nasuux mooy li ñuy tuddee tuub tuub tuub mooy nit ki du rek jéggalu yàlla ndax jéggalu yàlla tuub moo ko gën a mat tuub mooy nit ki dellu bu muy dellu ci yàlla ci rëcc rëccu bàkkaar bu mu def bàyyi ko dellu ci yàlla jéggalu yàlla ngir yàlla jéggal ko mu bàyyi bàkkaar bi loolu comme nu ko alimaamu Nawawi waxee foog ñetti shurut daje ci benn bi mooy nit ki jéggalu gu muy jéggalu ndax xadis ñëw na ci bopp xadis xasan la comme nu ko alxaafid ibn xajar waxee ne xadis bi xasan la yonente bi alayhi salaam ne at tawbatu an nadaama mu ne tuub dëgg-dëgg mooy rëccu nit ku bu rëccu rek mooy tuub na rëccu moom moo ci jiitu réccu bi li muy tekki mooy nit ki d'accord nangu ne dafa defoon njuumte li mu li mu nekkoon baaxul li mu doon def baaxul beneen bi mooy jéem a fexe bàyyi ko ndax wax ne yaa ngi tuub fekk ne li ngay def yaa ngi ci ba léegi loolu du tuub bu dëgg kon bàyyi ko beneen bi ci des mooy jàpp ne fas ci sa xol ne du ma ci dellu nekkul nag charte ne doo ci dellu mais jàppal loolu fasal loolu sa xol xëy nit ki mën na dem ba bakkanam mën ko ba mu delluwaat ci boobaa tuub boobu fecceeku na naam mais ba léegi tuub mi ngi fi waat encore ba léegi tuub mi ngi fi waat encore bu fekkee ñett yooyu daje na ci tuub na digganteem ak boromam mu des bu dee loo xam ni àqu ay doomu aadama daf ci aju nit ki jéem a fexe daf ñu tuddee taxallul li yonent bi alayhi salaam waxoon ne koo xamante ni àqu nit mi ngi ci loosam fii ci àdduna na góorgóorlu set ci àq boobu léegi balaa ñuy dem bis boo xam ni xaalis amu fa de ay bàkkaar moo fa nekk ak ay tuyaaba ku fi yor àqu ci say tuyaaba lañ leen di fayee bu say tuyaaba jeexee ñu jël seen i bàkkaar teg la ko loolu àq yooyu dafa yaatu am na ci loo xam ne wàllu alal la comme ni mu ñëwee ci xadiisul muflis bi mu wax naan atadruuna manil muflis mooy ki perte dëgg mooy kiy ñëw yowmal qiyaam fekk ne jëf na ay jëf yu baax fii ci àdduna waaye indaale na ay tooñ-tooñ yoo xam ne bu ñëwee seeni borom duñ ko ko baal ndax tooñ-tooñ yooyu ku nekk ci ñun fii ci àdduna mën nga koo baalaate baalante suñu diggante waaye yowmal qiyaam moom nit ki du ko baal du ko baal du ko baal moroomam ak ku mën doon moo tax mu doon wax ne kon jëm leen fexe tooñ-tooñ yooyu ngeen dindi ko seen diggante balaa yowmal qiyaama tooñ-tooñ yooyu dafay indi ay jafe-jafe bu dee lu nit war a delloo mu delloo bu dee lu mënta delloo mu saraxe wala mu ñaanal mbokk jullitam wax ci moom lu baax yooyu yëpp mën na koo dindi mën na koo dindi loolu sax mooy li li li yenn borom xam wax ne mooy li yàlla wax ne wa nazana ma fi sudurihim min xillin buñ demee bay waaj a dugg aljanna insha allah yàlla nañ ci yàlla boole buñ jéggee siraat bay jub xawdu bi am na ñu wax ne foofu noonu la yàlla di defee loolu mu wax ne wa nazaana ma fi sudurihim min min xillin mooy tooñ-tooñ yi ñu daan tooñante suñu biir ki waxal na moroomam lii kii jàppante na ak moroomam day am yu muy bàyyi ci xol yi waaye bis bu ñu àttantee ci taxaw ay yawmal qiyaam ba lépp jeex yàlla dafay fomp loolu ci dënn yi ba ñu fàtte ko nekk ay mbokk moo tax mu ne ixwaanan ala sururin ixwaanan boobaa dañuy nekk ay mbokk yoo xam ne kenn du dencalati sa moroom dara kon tuub boobu mooy li ci jiitu yàlla subhanahu wa taala sant ñu ko ne yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudxilakum yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla tuub leen dellu ci yàlla tuub goo xam ne tawba nasuux la ko tuddee nasuux mi ngi jógee ci an nusux bi ñuy tuddee nasiha mooy tuub goo xam ne day defar ndax bàkkaar day yàq bàkkaar dafay am ay traces yu muy bàyyi ci nit ki yooyu muy yàq tuub bu set moo ko mën a dindi tuub bu dëggu moo ko mën a dindi day dindi yàq-yàq yi bàkkaar yi defoon ci xolu nit ki ci yaramu nit ki ci jëmmu nit ki tuub da koy dindi da koy raxas ba mu set moo tax tuub am solo ndax bàkkaar dafa am ay jeexital yoo xam dina ko def ci nit ki mooy li yàlla di wax ne kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun mooy yi nga xamante ne bi moom la nit kiy def ci ay ñaawteef ni muy yàqee xolam dem ba xol bi dootul bëgg lu baax dootul bëgg dëgg mel na nit ki feebar boo defaree lekk bi gën a neex nga jox ko ko bu ko lekkee da koy waccuwaat ndax yaram bi moo am virus bu ci nekk bu ko infecté ba lu baax li mu daan bëgg mu jariñ ko soxlaatu ko bu ko bu duggee day day doy génn xol bi tamit am na fu muy àgg ci feebar bu déggee dëgg dégg kàddu yàlla dégg kàddu yonent bi alayhi salatu wasallam da koy rejeté mu génn ndax feebar bi nekk ci xol bi infecté xol bi moo tax mënatul supporter kàddu yooyu kon feebar boobu loolu bàkkaar moo koy def moo tax nit ki soxla di tuub fu mu toll ngir di dindi yàqu-yàqu yooyu nga xamante ni bàkkaar yi daf koy def tuub googu nag bu ko nit ki defee yàlla subhanahu wa taala da koy nangul bu fekkente ni dëggu na ca ndax tuub ñaari tuub moo am yu yàlla di defal nit tuub bu njëkk bi mooy tuub bi la yàlla di baaxee nga tuub loolu tuub lañ koy tuddee summa taaba alayhim li yatuubu la yàlla waxoon daf ne summa taaba alayhim ne li yatuubu maanaam yàlla moo leen tuubal ngir ñu tuub yàlla moo leen tuubal ngir ñu tuub tuubaguñu yàlla tuubal leen tuubal bu njëkk boobu lan la borom xam ne yàlla moo leen xirtal ci ñu tuub yàlla moo leen defal tawfiq baaxee leen ba ñu tuub boobu mooy tuub bi njëkk ñaareelu tuub bi mooy boo tuubee ba jéggalu dellu ci yàlla yàlla nangul la ko kon nit ku nekk war na góorgóorlu ci loolu di tuub fu mu toll nit ki bu tuubee yàlla nangul ko tuubam yonente bi alayhi salatu wasallam dafa waxoon ne ku tuub yàlla nangul la sa tuub li fekk jant bi fenkewul soowewul fi muy fenkee bu ñëwee ba axiru zaman bokk na ci mandarga bi su penc yi jant bi fenkee astaghfirullah jant bi so lan la ñuy wax jant bi fenkee fi muy sowee noonu la de jant bi fenkee fi muy sowee maanaam génnee fi mu daan duggee bu ñemee ba loolu am aaya boobu muy kéemtaan boobu bu amee ñépp dañuy gëm yàlla yawma yati baadu ayaati ayaati rabbik mu ne laa tanfau nafsan imaanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaaniha xayran yonente bi alayhi salaam dafa waxoon ne loolu bis bu newee ba nit ñi gis ko ñépp dañuy gëm waaye ku gëm mu ne bis boobu mooy bis bi nga xamante ni laa yanfau nafsun aw nafsan imaanuha lam takun amanat min qabl benn bakkan sa ngëm dootu la jariñ fekk ne gëmuloo woon noonu la ko waxee alayhi salaatu wasalaam comme ni mu ñëwee ci aaya bi mooy ne bu xew-xew bu mel noonu amee ñépp dañuy gëm yàlla mais bu boobaa ngëm yàlla dootu jariñ mu ne kon nag avant xew-xew boobu di am képp ku tuub yàlla nangul la sa tuub ci yenn xadis mu ne képp koo xam demoo ba sa sa sa ruux di nekk ci sa baat ci sa buli di waaj a génn nee na yàlla da koy nangu inna allaha yaqbalu yaqbalu tawbata abdihi maa lam yugargir maa lam yugargir la wax algargara mooy bu ñu demee ba nit ki di def oq oq oq nga xam ne ñi ngi naan bakkan baa ngay génn fekk nit ki àggul foofu bu tuubee yàlla jéggal ko loolu yërmande loolu yaatu na trop mooy nit ki benn laxda benn seconde sax bu desee ci dundam buntu tuub ba léegi mi ngi ubbeeku yàlla lu muy def yonente bi alayhi daf ne inna allaha yabsutu yadahu bil layli li yatuba musiu nahaar wa yabsutu yadahu bin nahaari li yatuba musiu layli wa dalika xata tatlua alchamsu min maghribiha yàlla subhanahu wa taala day tàllal loxoom ngir ki daan def ñaawte ci bëccëg ngir ki doon def ñaawteef ci guddi gi tuub jéggalu yàlla nangul ko maanaam moom xaarul sax ba jaam ñi di ko di ko ñaan moom yàlla moom mooy sàkku ci ñoom loolu subhanahu wa taala loolu yërmande yërmande yërmande bu foofu yolu yërmande mënu ko weesu di tàllal loxoom bu guddee ngir ñi doon def ñaawteef ci bëccëg tuub yàlla nangul leen seen tuub te mu ne loolu dafay continuer ba keroog jant bi di fenkee fi mu doon soowee loolu dafay continuer kon tuub boobu noonu mooy li nga xamante ni du bàyyi benn bàkkaar tuub moom bàkkaar yépp la mën a dindi amul bàkkaar bu mu tuub mënta dindi ci nit bàkkaar yépp la tuub di dindi comme na ko yàlla subhanahu wa taala waxe inna allah yaxfiru yaxfiru zunuba jamian beneen sabab bi ci des mooy al istigfar al istigfar benn niveau la bu gën a tuuti tuub tuub moo gën a yaatu moo gën a sori ndax yi ciy daje ci ay conditions duñ ko charte ci istigfar istigfar mooy jéggalu yàlla jéggalu ak tuub bokkul jéggalu mooy jéggalu bi nit ki di jéggalu yàlla subhaanahu wa taala ci ay bàkkaar yu mu def ay rëcc rëcc yu ko dal muy jéggalu yàlla am na ay kàddu yoo xamante ni moom la nit ki di wax di wax ne mi ngi jéggalu yàlla loolu sax moo tax leen si borom yi xam-xam xamatuma kan moo ko doon wax yaakaar naa am na kenn ci as-salaf ku doon wax sax naan nit ki warul wax astaghfirullah wa atubu ilayh amul am na daan wax nit warul wax ne maa ngi jéggalu yàlla di di tuub di dellu ci yàlla te loolu nekkul dëgg ci moom ndax boobaa day wax lu amul day wax lu amul ndax bu waxee ne mi ngi koy def te defu ko boobaa wax na lu amul waaye jéggalu yàlla moom liñ ci nam mooy maa ngi sàkku yërmande njéggalal yàlla mooy as astaghfirullah mooy atlubu al maghfira min allah al maghfira mi ngi jógee ci al ghufr bi nga xam ne muy tekki mooy as-sitr mooy yàlla suturaal la suturaal la bi mu lay suturaal mooy nëbbal la sa bàkkaar nëbb bi mooy bu ko jéggalee far ko mooy jeex na supprimer na ko mel na ni loolu amatul kon loolu ngay sàkku ci yàlla yàlla defal la ko yàlla suturaal la ci sa bàkkaar yooyu noonu ba jéggalal la ko ibnul qayim dafay wax nag ne tuub bale moo gën a moo gën a yaatu astaghfirullah bi mu istighfar bi mais istighfar bi tamit lu am solo la ndax maghfira tamit bu la ko yàlla defalee dafay dindi sa bàkkaar yépp ndax moom dafa wax ne maghfira ak takfir bokkul takfir bi yàlla di wax kaffara anhum sayyi'atihim ak yu kaffiru ankum sayyi'atikum takfir boobu nee na moom dina dindi bàkkaar yi defar li mu yàqoon mais du la protéger ci liy ñëw nee na nag maghfira bu la ko yàlla defalee dafay dindi bàkkaar yi ba pare aar la sàmm la ibnul qayim mooy wax sew-sew yu mel noonu ci seen diggante ñoom ñaar moo tax mu ne boo seetloo sa jëf yi ngay def lim lay jural mooy nga am maghfira mais bu dee yeneen yi nga xamante ne du say jëf direct mu ne loolu kafaara la lay jural lu mel ne nit ki yàlla teg nattu mu muñ nattu bi wala mu nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu ak nattu yooyu ko yàlla di teg loolu kafaara la koy jural kafaara mooy day takfiir day dindi rek bàkkaar yele day dindi bàkkaar yi nga xam ne moom sabablu ci directement yonent bi alayhi salatu wasallam wax ci xadis boo xam ne xadis Abu Hurayra bi nekk ci Buxaari ak Muslim ne ab jaam bu defee bàkkaar daal di jég rëcc rëccu ne astaghfirullah jéggalu yàlla yàlla def naan ah sama jaam bi de xam na ne ndakay am na borom boo xam ni dafay bañ ku ko tooñ ku ko tooñ soo moytul mu duma la ba noppi boo ko jéggaloo mu jéggal la kon jéggal naa ko xam-xam boobu ko nit ki xam ba tax muy jéggalu yàlla rek yàlla ne jéggal naa ko ci loolu mu defaat dem ba jamono defaat bàkkaar yàlla ne ah sama jaam bi nekk xam na ni am na moom borom boo xam ni bëggul ku ko tooñ te ko boo ko tooñee boo ko jéggalee mu jéggal la kon jéggal naa ko ci ñetteelu yoon bi bi mu jéggaluwaatee yàlla ginnaaw bu mu defee bàkkaar yàlla waxaat loolu ba noppi ne sama jaam bi na def lu ko soob na def lu ko soob mooy saa bu defatee bàkkaar bu jéggaloo ma jéggal ko amatul fu mu yem loolu yenn ci borom yi xam-xam wax nañ ci ay wax yu xaw a yaatu ci ne li muy tekki al imam ibnu xajar matam mi koy sharx ci fathul baari mi ngi wax ne li muy tekki mooy saa bu nit ki jéggaloote yàlla jéggal ko saa bu nit ki jéggaloote yàlla jéggal ko kon loolu li muy tekki mooy yërmande yàlla amul fu mu yem saa bu nit ki jéggaloo yàlla subhanahu wa taala jéggal ko ibnu bataal dafay wax ne tamit dañ ciy jële tamit ne nit ki di nuur ci bàkkaar baaxul mooy def bàkkaar defaat ko baaxul ndax boo defee bàkkaar defaat ko beneen yoon tuub bi nga tuuboon ak jéggalu bi nga jéggoon ci diggante bi répété bi nga répété bàkkaar bi dellu bi bàkkaar bi yàq na ko ba pare day tax bàkkaar bi day gën a ñaaw ndax def ko première fois bi mën nañ la utul excuse mais boo ci delluwaatee day gën a ñaaw waaye nee na tamit bu nit ki defaat defee bàkkaar bi une deuxième fois ba pare jéggaluwaat tuub jéggalu mu ne tuubam boobu day ëpp doole bu njëkk bi ndax baamu bi mu baamuwaat tuub bi day ëpp doole bu njëkk bi loolu la wax nee na kon li muy tekki mooy nit ki fu mu toll dafay war di jéggalu saa bu defee njuumte ndax taqoo ba muy taqoo ak njéggalu loolu dafay may gën a may doole ci moom jéggalu yooyu muy jéggalu loolu mooy tax bu demee ba so ba bëri ci moom muy jéggalu yàlla yàlla mujj gi jéggal ko bàkkaaram yépp tayib ci xadisu shaddaad ibn aws yonente bi alayhi salaam jàngale woon na sayidul istigfar allahuma anta rabbi la ilaha illa ant xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika ma sataat audu bika min sharri ma sanaat abuu laka bi danbi wa abuu bi nicmatika alayya ba bu njëkk bi moo jiitu abuu bi nicmatika alayya wa abuu bi danbi faxfir li fa innahu la yaxfiru dunuba illa illa ant loolu ku ko wax yonent bi alayhi salaam nee na bëccëg boobu boo ci faatoo aljana nga jëm ku ko wax ci guddi nga faatu laata bët di set aljana nga jëm maanaam kooku lu ñuy tekki istigfaar mooy sayidul istigfaar mooy kaddu jéggalu yàlla gi gën a sori nga xam nit ki day tudd yàlla nangu ne yàlla moo ko moom moo ko sàkk mi ngi góorgóorlu ci di nekk ci li neex yàlla mu ne mi ngi nangu ne moom ku def ay njuumte ku def ay tooñ-tooñ la waaye tamit mi ngi nangu xéewalu yàlla gi ko yàlla defal lépp mi ngi koy reconnaître di am reconnaissance envers yàlla subhanahu wa taala di nangu tamit di reconnaître tamit ak suufeem ak néew dooleem ba tax muy def ay bàkkaar digganteem ak boromam kon jéggal ma ndax amul keneen kuy jéggale ku dul yow ban kàddu moo gën a mat loolu ban kàddu moo gën a rafet loolu boo jàngee moo tax benn borom di wax ne bàyyi fi sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem di taqaleel sa bopp di bricoleel sa bopp ay baat ak yooyu ñàkk a xam la rek ndax njàngale yonente xayrul hadi hadi muhammadin alayhi salatu wasalaam njub bi gën ci njub yi mooy njubu yonente bi alayhi salatu wasalaam dafay feeñ ci kàddu yi mu daan jàngale ci kàddu yi azkar kàddu yi zikr kàddu yi tudd yàlla amul kenn ku mën a fent ak lu kàddu yi rëy rëy rëy ak loo employé ay termes yu mag a mag a mag yu gën a rafet yonente bi ni mu daan sàbbaalee yàlla ak kàddu yi mu ci jàngale amul ku ko gën a matale da ngay gis ñi ñëw ci ginnaaw bi di fent ay kàddu yu rëy yu mag di ci lu ne ñu wax ko ci mais day dem ba day am ay dérapage ci biir waaw ndax ni mu xamee yàlla amul kenn ku ko xamee noonu yàlla te li mu daan wax yàlla moo ko doon jox moo tax sa tënku ci njàngaleem ci say kàddu yi ngay tuddee yàlla yi ngay jéggaloo yàlla loolu moo gën a mucc fuuf te moo gën a matale tamit pour nga am li nga xam ne moom nga bëgg sa digganteeg sa borom kon loolu moo tax mokkal genre ñaan yooyu di ko faral di wax lu am solo la anas nee na dañ daan toog ak yonente bi alayhi salatu wasallam di ko dégg ci benn jataay mu toog dafa tàmmoon di wax ci làmmiñam allahuma inni astaghfiruka wa atubu ilayka innaka anta tawaabu rahim da ko daan wax ñu koy compter ba mu ma téeméeri yoon ci benn jataay bu muy toog di waxtaan ak ñoom rek bu waxtaanee tuuti ba mu yàgg ñu dégg ko mu wax ko ci suuf daaw ko yuuxu ci kaw waaye da koy wax ci suuf ñu koy dégg nee na ci dina ko baamtu ci jataay bi lu ma téeméeri yoon ma koy wax alayhi salatu wasalaam te moom yàlla jéggal na ko ay bàkkaaram yu jiitu ak yu mujj te fu mu toll daf daan jéggalu yàlla moo tax mu daan wax innahu la yugaanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fi lyawmi miata marra ci yenn xadis mu ne astaghfirullah fi lyawm sabaina marra daan na wax ne léeg-léeg xolam sax day xaw a sàggan xaw a sàggan la wax la yugaanu ala qalbi sama xol sax day xaw a sàggan ma fàtte bu ma fàttalikoo rek nee na fu ma toll damay damay tudd yàlla di ko jéggalu mooy li Aïcha wax ne kaana yadkurullah ala kulli axyaanihi yonente bi alayhi salaam fu mu mës a toll day tudd yàlla dafa demoon ba loolu nekk lu tàmm lu taq ci làmmiñ bi te tudd yàlla ci làmmiñ dafay dem ci xol dafay dem ci xol day comme ni Ibnul Qayyim wax ne ni safara di lakkee urus di lakkee or ba or bi pur ba set nee na tudd yàlla yi ngay tudd yàlla sa làmmiñ noonu lay lakkee sa xol ba mu set ba pur ba lépp lu ci nekkoon ci ay taq-taq dafay deñ rawatina bu dee li ngay tudd yàlla yaa ngi ciy bàyyi xel yaa ngi ciy bàyyi xel tayib mu doon wax tamit ci xadis ibni masud ne képp ku wax astaghfirullah ci yenn riwaayat astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa mais ci yenn riwaayat astaghfirullah alladi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi mu ne képp ku ko wax astaghfirullah alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum ci yenn mu ne wa atubu ilayhi mu ne képp ku ko wax yàlla jéggal la say bàkkaar donte da ngaa dawoon xare te waxoon nañ sànq ci daw xare yonent bi boole woon ko ci bàkkaar yu mag yi mu ne ku wax loolu yàlla jéggal la say bàkkaar donte bàkkaar bu mag nga def yàlla subhanahu wa taala jéggal la ko tayib beneen sabab bi troisième bi mooy jëf yu baax yi nit kiy def yàlla da ko ciy jégal ay bàkkaar bàkkaaram yàlla mi ngi wax ne waa waqimi solaata tarafay nahaari wa zulafan min alleyli inna alxasanaati yudhibna sayiat na ngay taxawal julli ci ñaari partie wu bëccëg bi commencement bi ak fin bi ak ci guddi gi demee ba nekk ci xaaj loolu alxaafid ibn kathir ci tafsir aaya boobu daf ne allahu alam yàlla rek moo xam waaye li mu jàpp mooy aaya boobu ci commencement l'islam la woon bi ñu nekk màkka avant yàlla di farataal ci ñoom julli juróomi juróomi julli yi mu ne boobu li waroon ci ñoom ñu koy julli mooy ci commencement bu bëccëg bi dañuy julli ñaari rakka bu ñëwee ba ci fin bi ñu julli yeneen ñaari rakka ci guddi gi da daan war ci ñoom ñu julli guddi googu li waroon ci ñoom ñuy julli bi yàlla demee ba farataal juróomi julli yi daf koo teggi ci jullit ñi mu des ci yonente bi alayhi salaam moo tax yenn ci borom xam di wax ne yonente bi alayhi salatu salaam qiyaamul layl muy taxaw guddi dafa waroon ci moom wa min al layli fatahajjat bihi naafilatan laka asa an yabaasaka rabbuka maqaman mahmudan yàlla dafa farataaloon ci moom guddi julli yooyu mais mu teggil ko jullit ñi kon ñaari julli yooyu noonu mu ne la yàlla di foofu wa aqimi solaata tarafay nahaari wa zulafan min al-layl mu ne inna alxasanaati yudhibna sayiat jëf yu baax yi nit kiy def dafay yóbbu bàkkaar yi daf koy fomp xadis bo aaya boobu sababu nuzul bi wax nañ ne benn waay moo daje woon ak as soxna am lu mu séq ak moom ci foo ak moom waaye jotuñu àgg ci def lu bon njaaloowuñu bi mu defee loolu xelam yedd ko mu ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalam wax ko li mu def bi mu ko ko waxee réccu ko yàlla daal di wàcc aaya bi nee nañ da ko wax yonente bi alayhi salam yonente bi alayhi salam ne tekk fi mu toog wuyu ko mu wax bay dem mu ne wool leen ma waa ji mu ñëw mu jàngal ko aaya bi loolu mooy réponse am mooy taxawal ci ci ginnaaw bi nga defee ñaawteef bi jaamu yàlla jullil julli yi ngay def ak jaamu yàlla yi dina fomp bàkkaar yooyu nga xam ne defoon nga ko inna alxasanaati yudhibna sayiat loolu la waxoon saxaabi ba ne ko waatbii sayiata alxasanata tamxuha soo defatee ñaawteef na nga ci teg jëf bu baax ndax daf koy fomp daf koy fomp kon jëf yu baax yi dafay fomp yi nga xamante ni mooy bàkkaar yi nit ki di def yooyu noonu alxaafid ibn alqayim dafay wax ne jëf yu baax yi nit kii di def ndax bàkkaar yépp yu ñuy def la mën a fomp yu mag yi ak yu ndaw yi wala yu ndaw yi rek la mën a fomp ndax gis nañ ni ci liy ñëw ci lu mel ne julli yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon na ci julli ne salaatu almafruda almafruda wala alfarida ila alfarida wa ramadan ila ramadan والحج إلى الحج مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث mi ngi ñëw ci kanam mu ne woon julli juróom ba julli juróom bu nit ki jullee ba bu muy julliwaat beneen julli bi ñëw fekk ko fi li mu fi def lépp ci ay ñaawteef dañ koy dindi ba mu waxoon sax ne bu kenn ci yéen amoon benn bassin bu nekk ci kanamu këram mu ci sangu bis bu nekk juróomi yoon est-ce que yaramam dina des ak tilim ñu ne ko déedéet mu ne julli juróom noonu la mel yukaffiru llahu bihinna alxataaya yàlla da ciy fomp ay bàkkaar julli juróom yi kon julli juróom dafay fomp bàkkaar mais ci xadis yi mu wax daf ne bu nit ki moytandikoo bàkkaar yu mag yi julli yi ak jaamu yàlla yi dina ko dindil ay bàkkaaram kon li muy tekki mooy bàkkaar yu ndaw yi la ndax bu moytoo bàkkaar yu mag yi mu fomp bàkkaaram li muy tekki mooy bàkkaar yu ndaw lay fomp ndax yu mag nekkatu fa ndax nit ki moytu na ko ndax loolu mooy condition bi ci ñi lenn loolu la yenn ci ay borom xam waxee ne kon est ce que kon jëf yu baax yi nit kiy def bàkkaar yépp lay fomp wala yu ndaw yi rek lay fomp Imam Ibnul Qayyim nee na ça dépend des fois ci degré jëf bi niveau jëf bi ndax benn jëf dina am kàttan bu ak force bu nekk ci moom waaye tamit kàttan gi ak force bi day dellu ci ki ko def ni mu ko defee moo tax moo doon wax ne assilaahu bi xasabi daaribi laa bi quwatihi mu doon wax ne boo xoolee tamit arme bu nit ku yor lu mel ne par exemple ñu bañ a joxe kii ci ci jaasi mais ñu xool semmiñ nit bu yoroon semmiñ di gor nee na gor bi nit ki di gor garab pour dagg ko dagg bi sémmiñ bi di dagg mu ne dépendreul trop ci force sémmiñ bi mais ci force kii dóor la dépendre ci loxo nit ki la dépendre mu ne tamit jaamu yàlla yooyu fomp bi mu fomp ay bàkkaar dafa dellu ci nit ku koy def ci boppam ni mu koy defee anam bi mu koy defee mu ne bu dee benn teewlu bi ak rafetal bi ak sellal bi daf ko nit ki daf ko ko defalee mu ne mën na fomp bàkkaaram yépp même bàkkaar yu mag yi sax mën na ko dindi bu dindiwul lépp tamit mën na ci dindi lu bari mu ne ndax li mën a dindi bàkkaar yépp mooy tuub moo ko mën a dindi tuub foog nit ki tuub bàkkaaram yépp soo ko set mais jaamu yàlla yi mën na ci dindi lu bari même ci yu mag yi bu ko defee bu fekkente ni xaw na wàññeeku tuuti ci force bi bi mu ko defee boobaa nee na mën na wàññi bàkkaar yu ndaw yi dindi bàkkaar yu ndaw yi mais du am doole dindi bàkkaar yu mag yi bu dee gën na néew doole defin bi defu yàkkamti la defu lii la defu lii la force bi ci war a am amu ci mu ne bu boobaa ma ngay def jëf yu baax ñu ngi koy bindal yool bi mais jëf yu baax yi mënta fomp trop mënta dindi trop bàkkaar yi nga xamante ni moom lay def am na lenn rek lu mu mën a wàññi ci bàkkaar yu ndaw yi mais même bàkkaar yu ndaw yi day résister jëf yu baax yooyu mënu koo dindi loolu kon Ibnul Qayyim wax lu am solo la ci ne bàkkaar yu mag dindi jëf yi nga xamante ni wala ñaawteef yi nga xam ne mooy nekk ci nit ki astaghfirullah jaamu yàlla yi nit kiy def dindi far fomp bàkkaar yi nga xamante ni moo nekk ci nit ki ndax day yem rek ci yu ndaw yi wala dina dindi yu mag yi mu ne bu amee force bu ci nekk ci defin bi bu rafetee jaar ci yoon dina dindi yu ndaw yi ba laal ci yu mag yi waaye pour yépp dañ moom foog nit ki tuub pour mu soog a mën a set ci ay bàkkaar bu ñu xoolee ci loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam tudd na ci lu bari ci ay ay ay mbir wax na ni amul benn jullit buy def bàkkaar jug daal di jàpp ba set julli ñaari rakka lu dul na yàlla jéggal na ko xadis boobu mi ngi ci musnad imam ahmad ak ci assunanul arbaa di xadis boo xam ne xadis bu wér la xadis mooy xadisu ali beneen xadis bi des di xadisu usmaan ibn affan bi nekk ci buxaari ak muslim mu ne yonente bi alayhi salatu fekk usmaan dafa jàpp ba pare bi mu jàppoo mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam laa gis benn bis mu jàpp ba pare wax ne képp ku jàpp comme nii nga ni ma jàppoo nga jug julli ñaari ràkka yoo xam da nga cee concentré wu ànd ci sa xel yàlla dina la jéggal lépp loo xam ne mas nga koo def ci bàkkaar ci wàllu sarax tamit waxoon na ci xadisu xudayfa bi omar ibn alxataab laajee ne kan ci yéen moo jàpp xadis bi yonente bi alayhi salatu wasallam di waxee ci fitna yiy ñëw ci mujj jamono di tegaloo xudayfa ne man xam naa ko mu ne ko lan la waxoon mu ne li mu waxoon mooy nit ki rëcc-rëcc yi mi di koy dal njuumte yi muy def moo xam ci njabootam la wala ci alalam la ci ay doomam ci ay waaj ci ay ci ay dëkkandoom la jaamu yàlla yi muy def ci julli ak di saraxe ak di woor ak di digle lu baax di tere lu bon dafay dindi loolu daf koy dindi kon li muy tekki mooy sarax tamit dafay dindi ay bàkkaar digle lu baax tere lu bon dafay dindi ay bàkkaar salmaan tamit ba léegi waxoon na ne yonente bi alayhi salaam nee na koo xamante ni bisu àjjuma da nga sangu sa kër ba set toilette ba set laal sa parfum sol séeré bu rafet ñëw dugg ci jàkka ji taqaliwloo ñaari nit yu toogoon boo demee ba bëgg a toog ci diggante ñaari nit ñoo xam dañoo taqaloo nga demandé leen seen permission bañ may la ko nga soog a toog mooy daal nga teg nga sàmmonte ak tegginu jumaa bu imaam ñëwee di wax nga déglu ko ba mu xutba nga julli nee na boo fa jógee sa bàkkaar dafay set ci yow wicc comme bis bi nga xamante ne ci la sa waajur jur mooy dootoo dese benn bàkkaar bàkkaar dafay set ci nit ki mu doon wax tamit ne képp koo xam ne woor na weeru koor ci kaw gëm yàlla ak yaakaar fayu yàlla yàlla jéggal ko ay bàkkaaram ku taxaw weeru koor di ci jaamu yàlla tamit ndax gëm yàlla ak yaakaar fayu yàlla yàlla jéggal ko ay bàkkaaram Euh, loolu yonente bi alayhi salaam wax na ci ay wax yu bëri doon na wax tamit ku wax subhaanallahi wa bihamdihi ci bis bi téeméeri yoon yàlla subhaanahu wa taala dafay dindi bàkkaaram yépp donte dafa tolloon comme vague géej vague yi géej bi di di di di nekk ci géej gi nee na donte say bàkkaar noonu la bëree woon lépp yàlla dina la ko jéggal su fekkee rek wax nga subhaanallahi wa bihamdihi ci bis bi téeméeri yoon ba léegi tamit aj waxoon na ni koo xam ne dafa aj bi muy aj demul ci aj gi di fa wax ay wax yu ñaaw dafa def jëf yu ñaaw mu aj aj goo xamante ni bi aj gu rafet la gu sell la bu delsee dina summeeku ci ay bàkkaaram comme bis bi mu juddoo mi ngi ci Sahih Bukhari ak Muslim mu bokkaat ci sabab yi nga xam ne ba léegi moom mooy far bàkkaaru jullit bi ñaan moo xam ñaan yu muy ñaanal boppam la wala ñaan yu ko ay mbokk jullitam di ñaanal ndax sa mbokk jullit ñaanal la bunt la tamit ci bunt yi nga xam ne yàlla dala ciy jéggal yàlla dala ciy defal ay xéewal yonent bi alayhi salaam bi Omar di aji waxoon na ko ne ko laa tansaani wala laa tansaana fi min duaaikum la man laa tansaana min duaaikum waxoon na ko ne bu leen bu ñu fàtte ci seen i bu leen ñu fàtte ci seen i ñaan kon jullit dafa soxla ay mbokk jullitam di ko ñaanal mu waxoon ne képp ku faatu téeméer ñu gëm yàlla jullee ko di ko ñaanal yàlla njéggal yàlla dina ko jéggal képp ku faatu téeméeri nit yu gëm yàlla taxaw di ko ñaanal yàlla jéggal yàlla dina ko jéggal kon kooku yàlla jéggalee na ko ci ñaan yooyu ko ay jullit di ñaanal kon tamit jéggal nit dina ko am bu yàlla di jéggal ci ñaan yu ñu koy ñaanal mu waxoon ne képp ku faatu ñeent fukki nit yoo xam ni duñu bokkaale ak yàlla dara jullee nañ ko ñaanal ko yàlla yàlla jéggal ko yàlla dina ko jéggal juróomeelu sabab bi mooy nit ki bu fekkente ni faatu na itam ba léegi li nga xamante ni bi moom moo fiy nekkaat ci ginnaawam ci ay jëf yu baax yoo xamante ne dañ ko ko fi defal wala moom mu bàyyi woon ko fi ci lu mel ne sarax masalan wala ñu ajal ko bu dee woor am na ute bu ci am ndax nit bu faatoo dinañ ko woral ci xadis ibne abbas li mu waxoon ne man maata wa alayhi sawmu saama anhu waliyuhu koo xam ne dafa faatu fekk ne bàyyi na fi boru koor na ko kilifaam wooral maa ki ko jege mbokkam na ko wooral yenn ci borom xam ne dañuy wax ne loolu wooru Nizar la Nizar Ibn Abbas mi solo xadis bi loolu la wax daf ne bu fekkee dafa nizaroon ne dina woor koor googu day war ci moom ala kulli xaal da ko war a def bu faatoo bàyyi ko fi dañ ko koy fayal mais bu dee kooru farata la mu feebaroon wala mu tëddoon ba mënu ko woor ba far faatu jaare foofu faatu loolu wàcc na ko ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha loolu wàcc na ko ñenn ci borom xam-xam wax ne li gën mooy ñu waral ko ko wallahu aalam loolu bu boobaa dañ koy defal nit ki ci ginnaawam lu mel ne nga saraxel sa waajur loolu bokk na ci jëf yu baax yi ndaw di defal waajuram bu fi jugee du rek buy dund même bu fi jugee di ko ñaanal benn waaye tamit di ko saraxel am na sax ay si yenn xeetu sarax yoo xamante nit ki da koy def mu jëf bu baax bu mu fi bàyyi nit ñi di ko jariñoo mu yéene ko ngir waajuram ñu koy tuddee waqf waqf boobu am na boo demee ci yenn dëkk jullit yi dafay bëri da leen gis kenn ku jël benn bâtiment jox ko ñu ñàkk ñu dëkk ci mu wax ne lii ngir waajuram la nga xam ne benn njariñ bu ci nit ki jariñoo rek yool ba sedd na ko waajuram xoolal jëf bu toll noonu subhaanallah loolu lu rëy la ibnu ibnu ibnu taymi rahimahullah mi ngi wax ne loolu nag du dugg du dàqoonteeg li yàlla wax ne wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura ndax yàlla mi ngi nit amul lu dul lim jëf mu ne nit amul lu dul lim jëf wér na ci alxuraan ak sunna ne nit dina jariñu ci jëfu keneen léegi nag naka la ñuy expliquer aaya boobu mën nañu ko expliquer mooy nit amul lu dul lu mu jëf mooy moomul lu dul jëfam sa jëf nga possédé sa jëf nga moom waaye jëfu keneen lu mu la ci may yàlla jox la ko kon an laysa lil insaani foofu illa ma saa li muy tekki mooy li nga moom sa jëfu bopp moom nga mën a def wala nga ñàkk koo def waaye boo fi jógee nit ñaanal la nit defal la lu baax loolu dina la fekk fa nga xam ne fa nga tëdd donte du ci jaamu yàlla yépp nag juróom benneel bi mooy ramm ramm tamit dinañ ci jéggal nit yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla defal na ko ramm ramm yu bëri lay ramm yowmal qiyaama day ramm sax ba rammul ñi nga xamante ni gëmuñu yàlla ci ñaan bu muy ñaan yàlla mu àtte jaam ñi ci taxawaay bu metti bi ñuy taxaw ca liñ mooy liñ tuddee saaxa mooy saaxatul kubra ci taxawaay bi yàlla wax ne yowma yaqumu naasu li rabbil alamin nit ñi buñ demee ci yonent yi ci moom la ñuy mujj mu ñaan yàlla yàlla ñëw àtte jaam ñi loolu mooy almaqaamul mahmud bi ñu doon wax sànq asa an yabaataka rabbuka maqaaman mahmudan loolu moo tax tur bi ko yàlla bi ko yàlla tànnal muy muhammad yàlla da ko koo tànnal ngir ñi njiitu ak ñi mujj ñëpp gërëm ko mooy ñi ñëpp gërëm ndax yowmal qiyaam moom la yàlla di jox drapeau alhamd mooy drapeau ak cant gi moom la ñëpp di sant alayhi salaatu wasalaam ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla kon maqaamul mahmud boobu moom la ko yàlla di defal waaye tamit am na ci xeetu ramm yu ko yàlla di defal ci yu muy ñaanal xeetam yàlla jéggal leen nee na yàlla daf ko def jox benn choix tànnaloo ko ñaari mbir entre moitié wu xeetam dugg aljanna wala mu ñaan yàlla yàlla may ko mu ne naa tànn ñaan yàlla yàlla may ma ndax loolu amul fu mu yem ndax soo tënkoo ci lim mocce rek loolu affaire nombre la dafa xat alors que mayu yàlla amul fu mu yem loolu mooy tekki xam bu mu xamoon yàlla xam yàlla moo tax mu mu choisir loolu ndax ñi muy ràmmul yawmal qiyaam ci xeetam mooy ñi am ay difficulté daf ne ahlul kabair min ummati la wax ñi nga xam ne ñoo am ay bàkkaar yu leen nar a indil ay jafe-jafe yawmal qiyaam bu ñuy rëcc rëccee ba noppi ñooñu fa des ñooñu lay ñaan yàlla yàlla tin ko ci ñooñu yàlla jéggal leen kon lu yàlla namoon def la waaye teraanga la ju ko yàlla di jox yàlla jaarale ko ci moom bu sàkkoo ñaan yàlla ñi gëm yàlla yàlla dina leen defal loolu tamit ñu ñaan yàlla yàlla jégg bu ñu demee ba loolu jàll yàlla dina jéggalal boppam ñoo xamante ni defuñu lenn lu waroon tax yàlla jéggal leen maanaam yàlla bu santee malaaka yi ne leen dem leen ci aljana ngeen génne fa waa diw génne waa diw génne ñi daan julli génne nangam ba gaa yi génne dama dem ba ñëw ne ko yàlla génne na ñi ñu waxoon ñépp nga génne ñu yaqbidul rabb qabdatan wa fihim qawmun lam yamalu xeyran qab yàlla dina tibbal boppam ci biir safara génne ci ay nit ñoo xam ne mosuñoo defal yàlla lu baax yàlla dugal leen aljanna ñooñu day fekk safara lakk leen ba dañuy mel ne dóom da leen di génne tàbbal leen ci dex boo xam ne mi ngi ci diggante safara ak aljanna ñu ko tuddee nahrul xayaa dex la boo xam ne lu ci tàbbi dundaat comme lu bees bu leen ci tàbbalee dañuy dundaat comme lu bees dañuy régénéré wu ñooñu bu ñu ju- jugee ci anam boobu dugg aljanna ñooñu la ñuy tuddee aljahannami yuun noonu la leen waa aljanna di woowee mooy yéen waa jahannama mooy ñi nga xam ne fa lañ jaar soo ko dugg aljanna allahul mustaan yàlla nañ yàlla jégal yàlla nañ yàlla yaram beneen bi ci des muy juróom-ñaareel bi muy septième bi mooy mettit yi nga xam ne yàlla da koy teg nit fii ci àdduna yonent bi alayhi salaam nee na jullit bi bépp jafe-jafe bu ko yàlla teg donte sax dafa dox benn dëj jam ko benn épine jam ko ci tànkam nee na lu tuuti loolu sax yàlla da ko ci baal ay bàkkaar lu tuuti loolu sax yàlla da ko ci bàkkaar fekk benn bis dafa yonent bi alayhi salaam dafa jàng man yaamal suu an yujza bihi képp ku def lu ñaaw lu bon ak lu mu tuuti tuuti yàlla dina ko ko fay Aboubacar ne ah waa ñun nu ñuy def fu ñuy jaar mu ne ko bul jaaxle bul tiit bu fekkee bari ngeen ay njuumte itam xam leen ne yoon yi leen yàlla di jéggalee bari na te moo ëpp ndax nit ki boo defee benn bu baax yàlla bindal la ko fukk bindal la ko sax lu ëpp fukk boo defee benn bu bon benn bu bon la lay bindal te boo jéggaloo yàlla jéggal la boo defee leneen la moo tax Ibnu Mas'ud ne képp koo xamante ni say benn benn gañe na say fukk fukk kooku ku alku la benn faqastalu sax boo ko defee yàlla jéggal la ci bàkkaar kon jafe-jafe yi nit ki jànkoonteel ci àdduna lépp yàlla da ko ciy teggil ay bàkkaaram yàlla da ko ciy teggil ay bàkkaaram juróom ñetteel bi timis mi ngi waaj a jot li nga xamante ni ibn al eh, cheikh al islam nee na yi nga xamante ni moom lañ ki di jafeel ci ay jafe-jafe ci biir bàmmeelam yàlla da ko ciy jéggal ndax bàmmeel dafa metti bàmmeel dafa xat bàmmeel day tàncaate moo tax yonente bi alayhi salaam ne bu nit doon mucc ci tàncaayu bàmmeel ku dugg ci bàmmeel suuf dina la tànc laata ñuy yaatal sa bàmmeel ndax ginnaaw bi dañu lay yaatalal sa bàmmeel ginnaaw bu ñaari malaaka yi ñëwee mooy munkar ak nakiir bu ñu laajee nit ki ba mu tontu dañ koy yaatalal bàmmeelam ba fu mu xool ba fu bëtam yem wan ko ci ay teraanga loo xam daf naan sax yàlla taxawalal bi su penc ba samay mbokk gis teraanga gi nga ma defal yàlla nañ ko yàlla defal waaye tànc boobu nit ki yàlla di ko ñu koy tànc ak jafe-jafe yi muy jànkoonteel yonent bi alayhi salaam nee na bu ci nit doon mucc saad ibnu muaz dina ci mucc ndax moom moo faatu yonent bi ne ihtazza arshu rahman bi mawti saad ibnu muaz mu ne arsh yëngatu na ci faatuk saad ibnu muaz arshu rahman waaye terewul mu ne muccul ci dagta dagta bi nga xam ne bàmmeel dina ko dina ko dina ko tànc nit mu bokkaat ci juróom-ñetteel juróom-ñeenteel bi xa- jafe-jafe ak tiitaay bi nit kiy tiit ak njàqare bi muy nekkee yowmal qiyaama njàqare boobu ngay jaaxle sax ak tiit boobu ngay tiit ci ki gëm yàlla yàlla dina ko ci jéggal yàlla dina ko ci yërëm teggal ko ci lu bëri bëri ci yoo xam ne yu ko tiitaloon na beneen bu mujj bi mooy yërmande yàlla yërmande yàlla bi nga xamante ni du sax loo xam ne am nga ci sabab am nga ci lenn loo ci def yàlla moom lay moom moom mooy xool jéggal nit ki yàlla mooy xool mu baal nit ki ndax li ñuy def lépp ngir amee ko rek yërmande yàlla la li ñuy def amul lenn lu ci jënd benn puso wala benn xobu garab ci aljanna mënuñu koo jënd ak suñuy jëf mooy li yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon ne xam leen ne du ngeen dugg aljanna ak seeni jëf seeni jëf jëndul aljanna mais seeni jëf moo leen di may yërmande bi tax yàlla yërëm leen dugal leen aljanna kon dañuy sabablu kon li li nit ki ñaan yàlla rek mooy yàlla yërëm ko yàlla jéggal ko léegi ci li ñuy jeexalee mooy li Ibnul Qayyim wax ne nit ki ñetti dex la ko yàlla di di sóob ngir fóot ko ngir mu mucc ci bàkkaar benn dex bi mooy dexu sa bàkk sa jëf yu baax yi ngay def nga xam ne dafay dem ba muur say jëf yi nga xam ne mooy jëf yu bon yi daal di koy fomp effacé ko mu set jëf yu baax yooyu mu ne loolu benn dex la bu la yàlla di fóot mu ne bu ñu la ci fóotee setuloo ci bàkkaar yàlla dina la sumbaat tamit ci dexu tuub ak jéggalu tuub ak jéggalu yàlla subhaanahu wa taala bu fekkente ne dindi na say bàkkaar noonu la bu fekkente ne dindiwu ko nee na jafe-jafe ak métit yi nga xam ne moom la la yàlla di teg mu ne koo xamante ni nag ñetti dex yooyu yëpp suub nañ ko ci setul ci ay bàkkaar nee na safara rek moo mën a setal ay bàkkaaram yàlla nañ ci yàlla musal wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain